wax naa ko hémicycle xam nga politique wàccaay da ci am solo ñu waajal la xëy na cëpp daf ci bari les gens son trop dans le sensationnel ñu ci bari amuñu parcours bi amuñu formation bi day feeñ ba ci waxin wi xam nga fermeté bokkul ak insolence mais gis nañ ay vidéo yoo xam ne ça n'honore pas le député te day entacher toute la quatorzième législature pour mën loolu bokk na ci parce que les gens pensaient que su équilibre bi amee dina am qualité dans l'approche et dans le débat je ne pense pas que ça semble être le cas pour man loolu loolu lu ci jouer lu bari bari la ba pare aussi comme on l'a dit amoon na tension réelle les gens de camp mi d'autres ku nekk bëggoon nga woon fi nga bokk ni maa ngi ci maa ngi taxaw mais euh, boo seetloo regain tension yi mu ngi wàcc parce que nit ñi il commence à se rendre compte que ni soo génnee muy man di sama morom li nga def assemblée nga la nga wax ko am na koo xam ne dana la ko wax wala mu xoolee la ko ci mbedd mi au point que nit ñaa ngi yeddaat seen bopp xam ni ku ne effectivement assemblée bu nekk am na sànnante xeer am na am na mais c'est souvent autour d'idées autour d'intérêts généraux mais pas autour de personne ak ay nit donc problème de formation bi des na li li en terme de de de de parcours bi aussi des na ba pare leen li ci des aussi xam nga ku nekk li nga ma ngay duggee ñi jàpp ni cette législature c'est c'est même la pire de toutes les législatures ñooñu lan nga leen di wax bon xëy na du ñu du ñu du ñu loolu aussi c'est pour man c'est exagéré luy door a tàmbali amagul ci juróomi at ci juróom benn weer. ci ni mu tàmbalee ak li ci xew di ko gis tàmbali bi jamais jamais une violence n'a été aussi constatée jamais une insolence n'a été aussi con pour dire sur ce point moom wàllum àgg na bassesse boo xam ne ñun ñëpp lay interpeller te loo xamul assemblée loo fa def dañ koy enregistrer dañ koy bind. fii ak téeméeri at suñuy doom ak suñuy ku ne la nga wax. bu dee commission la wala plénière mu nga enregistré tege fa. Mhm. sur ce point là honnêtement on a on a terni l'image de cette assemblée et que war nañ ci xeex pour defaraat.